jëf xam na ne càmm ak yaram jur bokk na si lu ñu fi maam bàyyee woon te mu jël jéego bu am solo ci jëm kanam réew ba tax na Belgérie Cheikh Omar Diegane ne duñ si des gannaaw benn yoon Belgérie Cheikh Omar Diegane soo ko déggee def fam bu mag ñi yëngu nag ci mboolem xeeti xari elwaas yi ci ay laadum da fa fekk yii ma lay tuddal si lu ci demee ni Saloum Saloum Birahim Algori Cheikh Diop booy séréel ak magistrat yii ma la limal nag seen blog line si yëpp a nga fa fekk seen ak seeni sit ak mboolem xeeti xari elwaas yi cooy suma yi champion bangook Cheikh Omar Diegane moom mi nga xam ne moo jëloon ndam lu rëy li nga xam ne taarix du ko fàtte mukk moo andi woon xar mu ñuy wax bàcci mu jëlal ko ndam lu rëy ci jongante bi nga xam ne xar yu amagut at ñoo ko doon jongante ah sama gars yi maa leen wax li Belzéri Cheikh Omar Diegane doxantul ba Kanifing da nga leen fa fekk baa nga jokkoo ak ñoom ci 746 1733 746 1733 baa nga jokkoo ak ñoom 37 144 53 Belzéri Cheikh Omar Diegane daal ñoom ñoo fi ne the biggest and the famous association in the Gambia ñi nga xam ne tey seen first foire fii si réew bi ñu tuddee ko ba ci wara. Tay foire mu nekk different rap yu fi ñew, tay foire doon ba si ay 60 boxes te ñu seet si suñu gaay ñi nga ne Gambia Rabbits Breeders ñi nga xam ne ñu ngi def liggéey ci ay tay ci walum ñi nga xam ne rabbits olof mu ko oyé léeg ñi diko oyé ñom ñomboor Tay sen box bi lañ nekk pour ñu waxtaan ak ñoom grand ngi lan yu di jox sa wàccuwaay di la wax ne ndax ngeen dundee foire bi tey. Abass fay naa la waay waaw ñun foire bi xanaa xanaa kontaante parce que bi jox nañu opportunité boo xam ne yes opportunité bu rëy la te jox nañu ay very great experience parce que jot nañoo waxtaanaa ñu bëri si affaire yi léegi soo suñu doon foire bi xëy na duñu am opportunité boobu parce que Gambien seen awareness bi si affaire yi rabbit mooy léegi. dafa dafa tuuti trop te ñun luñ buggoon suñu sañoon Gambie ni ñëpp xam njëriñu rabbit waaw loolu lañ buggoon waaye at least foire bi may nañu tuuti opportunité pour ñu mun a waxtaanaa nit si affaire yi waaw. macha allah si wax boobu mu ne tey bu sañoon Gambie ñëpp xam leen wala ñëpp xam njëriñ bi nga xam ne moo nekk si rabbit tey lan moo leen boole ak ak ak li nga xam ne mooy mooy ñomboor. ñomboor waaw. soo gisee ñomboor ñu bari fii comme affaire yi pet moo leen si dee dugal comme affaire yi buga buga rek waaye da nga dee dem ba si biir soo si yàggee danga si dee jàngal lu bëri waaw comme suma maas man moom dama ko doon jar suma taay mi xale. understand après ma bàyyi bu ma magee ma delluwaat si waaye bu ma si doon dellu tamit dama dugal si dis concept bi comme pet laa ko bëggoon a doyee waaye after si dama si doon toppa research bi. ma ñëw gis ne ñomboor du pour pet kese ñomboor am na yeneen njëriñ yoo xam ne bu ko nit yi xamee dinañ si njëriñoo bu baax a baax a baax like other countries tey ñomboor tey ñomboor fan la la fekk ak fan la la yóbbu man kay alhamdulilah fu ma fekk ak fu ma yóbbu waaw maa ngi see sant yàlla bu baax a baax a baax waaw maa ngi see gis suma booba bu baax a baax a baax waaw tey dama gisoon ne comme tey suñu réew Gambie tey yarkati ñomboor yu bari la dañ daan am ñoom waaye dañ daan bàyyi que ñaar ragal dañ daan gis ne ñoom dañ daan dee seen loxo ñoom seen loxo ndax yéen tamit loolu doo ko dee waaw man moom ah, comme lu ma la ko dama ko daan yar suma taami xale loolu mayoon na ma si tuuti xam moo tax bu ma si delloowaat aw ma woon problème parce que man nit soo ma ne ah, man suma ñomboor yi dañ dee dee lii moo tax ma bàyyi dama si doon am jaaxle ah non man moom xamee wu ma ko noonu because man moom jigoor na ma trop waaye foog naa jàngat bi moo doyu daar waaw because nit soo bëggee dara booy commencé da ngay jege ñoo xam ne xam nañ ko wala nga def si research waaw boo ko bëggee kay da see def research pour yoriñ bi mu gën a yomb ak yow because ñoom dafa nekk loo xam ne dafa sensitif understand dafa am lu mu bañ dafa am lu mu bëgg loolu yëpp danga ko war a xam balaa nga see dugal wala nga jàng nga nekk si di si jànga di si guroowaale doo ko dee jaay doole daal danga see naxanteeg moom di ko jànga waaw di si guro su ma la déggee mooy si biir liggéey bi si nga dee jàngee waaw exactement si biir liggéey bi si nga dee jàngee di mag di si dem di si dem di si jóg di daanu di si jóg di si daanu di si jóg ñun bu ñu dañ daan gis ne ñomboor lu mu dee na a lekk mooy ay salade ay xobi palaat ay xobi pataat te ma gis leen ngeen di joxe ngooñ di joxe ripaas mu doy waar si man trop. waaw lu ma la waxee rek euh, gestu la waaw dañ si gestu ñu gis ne ñomboor salaat pour noris la ko rek waaye du loolu mooy di main diet am ñax la war a dundee eighty percent of his dafa war a nekk ñax understand nga lu si des yëpp da nga ko see comme élément bi élément bi xëj na ten percent lu du des then another ten percent muy hundred percent waaye eighty percent of the diet should be grass mooy bu wow bi wala bu tooy bi waaw. tey tey yan façon yi biir ngeen fi am tey. waaw am xaw nañoo am fi British sakan tuuti parce que am nañ fi eh, ay Flemish Giant teewut ah, waaye am nañ fi Rex mu ngi fi mu ngi fi am Fauve de Bourgogne mu ngi fi ñu ngi am California boobu tamit mu ngi fi Angora tamit mu ngi fi waaw. léegi ñu ñomboor tey daf dee cher si ban si ban price. ñomboor kay euh, pure waaw pure breed cher na pure breed mag eh, paire bu mag bi dem na ba 25000. soo ñomboor daf dee dem ba 25000 dalasis. ëpp na 25000 depend dafa depend si ban breed la. dafa depend si ban breed la boo xoolee Flemish Giant bi mun naa dem ba 40000 moo gën a cher si ñomboor yëpp. comme su ma la déggee comme ñoom yi dañ gën a nekkante si kanam. Flemish Giant comme tey nu téléphone yi mel. exactly Flemish ah, Giant moo gën a seet because moo ëppa dafa nekk ñomboor boo xam ne ñomboor bu kéemaane soo ko gisee boo ko tiimee di nga ko mën a jaawale ak xaj bu ndaw because dafa rëy moo tax dafa seer. waaw tey naka ngeen mel si dund ak dund ñomboor yi yan ñoo seen jafe-jafe yoo xam ne tey yéen ko soxla waaye gis ngeen ne tey yombul leen. te yéen a ngi koo jooy pour mu yombal. waaw ñu ngi am benn jafe-jafe mooy euh, pellets waaye mooy ripaas bi ñoom dafa am ripaas yi boppam waaw dafa am compagnie bu ko doon isi fii waaye de su ko bu buñ ko startee di use bu jeexee balaa moo indi waa def day jël time te ñoom boo dafa nekk loo xam ne bu taamee ripaas bii nii boo ko ceeñee mun naa daw biir bi te daw biir dafa gaaw si rey ñoom soo am nañ jafe-jafe boobu torop lañ bëggoon daal comme léegi ganaar nu mu fi yombee léegi xar nu fi yombee suñ sanoon léegi ñombor tamit noonu la moo yombee fii moo tax ñu ngi ñaan ñu dee isi lekka yi ñu taxaw pour affaire yi lekka yi mooy ripaas bi nañ ñu gestu ñun tamit ñu xam ne ne ñu ngi see yëngu bu baax a baax te affaire yi ñombor mu ngi grow rapidement si contre bi waaw nañ ñu si gestu waaw Jacques gars yi ñomboor yi ñu ne nuñ leen di sóor nu ñoo soralee xar yi nu ñoo sóoralee ganaar yi nu ñoo sóoralee yeneen bàyyi ma ñu sóoralee noonu seen wàllum dunda comme tey ni super laadum du ñëwee nu mix ene di ñëwee ñoom tamit ñu am sen on repasse mu ñëw parce que pour ñu ciñ seen daay dafa nekk si jafe-jafe soit di wax mboolem ki nga xam borom jaaykat yi la global lañ wala ñeneen lañ ñu sóoraale wa wa nyombori, yi tey ban kàddu dénkaane ngay am pour askan bi. lu ma dénkaane mooy ne ñomboor si yor ko si kër bi pet kese nyombor dafa am bénéfice yu bëri nañ try ñomboor yaapi ñomboor daanaka dafa baax si dafa baax si mag mag boo xam ne comme ñu am high blood pressure ak eh, ay diabetes tere nañ leen lekk yàppa ñomboor yaapi ñomboor dafa baax si ñoom ñomboor seben bi mun nga koo def maño mun nga koo def pesticide ah waaw puub bi tamit mun nga koo def meño so bénéfice bu nekk si ñomboor dafa bari so ñomboor emul si Eh, pets kese am na different different benefits yoo xam ne ñu ngi si ñomboor. su ma la déggee nga ne ñomboor ematu si per rek ñomboor jéggi na loolu te kon dafa mel ni comme tey gaa yi gaa yi gaa yi nañ soxla nañ ñomboor. waaw trop trop because chemical yu ñu dee yu soo xoolee ñomboor pour saw yi ñomboor mooy urine bi moo gën a effective dan eh, pesticides yooyu noonu chemical yi ba pare moo gën a économique because da ngaa gis ne one litre waaw one litre of. urine, rabbit urine, dan ko mun dilute si 20 liter of water. Understand nga? Te du te dafa effective. Nañ try new use ko you said, because new ñu say see def benn campagne because gaya hamo xamaguñ ko waaye buga bugga nañoo collect urine you dem jox gadi ne mungkin use lang ko ngeen said njëriñ bi. Lolo, lolo, lolo, dina am solo torop. Mune seven birek, bi gadi su ko gardien jëlee pompe ko seen place yi rek wing, dara. waaw ñu ñu ñu nuyu suñu mag bi ki nga xam ne ñu ngi laa ziare. ziar di leen ziar baax a baax. di la jox sa waa ci waay. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. di la wax ne xamee nañu si restaurant bi de tey si ñoom rek. waaw lu ko def na moo nekk uh, man uh, lu ma njëkk a jàng mooy cookery and pastry moo daa jàng hotel school 97 uh, 99 ma jógee foofu nag yàlla def may nekk di jàngale jàngale naa ba jàngale naa Gambia college waaw waaye. dañu dañ day yar ñu mbool ba ci bi jàngale bu bi dafa am tam suma garden di bay dafa di yar yar ah, ay jurta bi waaw. kon yow noo nekkee béykat ni ya nga amé ñombor yi comme waji lu wax ni comme mun nga ko degul comme gis né ñombor yi bi rek mu na def lu bari ci garden bi. wa dafa am lu ñu oyé dematuat si si si chemical chemical bu ñu oyé dematuat ak benen bi diko fol dematuat modé dee bon bu wéx bi di fol moy eh, bu bu bu dee sew nimboor bi soko yusé ci place insect du ko laal dafa nekk dafa nekk repel dafa mel ni ko montégal mo def ci yo ah ci yo do def ko dee repellent ko daaxa légui mom lolu mo liggéey puub bi bob compost la bo engrais la wa puub bi engrais la wa dafa lu ma wax non tam ci mbir yapp bi ñom ñomboor amul amul graisse dafa nek lo xam ne dafa nek yapp bu set yapp bu set la soo ko lekk ben problème dafa baax ci ñu def ay lo ba pare une fois sax ño xam mënu mënuñoo am ah, mënuñoo am ah, dirmo parce di koy di ñoo xam ne mënuñu ko am nañoo yuus ñoom mboor pare numéro 7 moom du dégg fu tilim moom du tooy. ndax yéen ndax yéen yéen comme tey ñoom yoo xam ne is meat for the market. waaw fu ne ne suñu last meeting bu ñu mujjee def ñu ngi waxtaan loolu lañ bëgg a woo dañ ñeneen dañ am dañ am teggin comme kii la ko waxee dafa am ñoo xam ne ko boo da def pet waaye dañ dem bési bi gis ne mënuñ koo nekk loo xam ne faa soblaay Gambie yëpp te ñoom mboor def 9 kilos su nekkee ordinaire ordinaire dafaa def kilos jusam jusam boo xam ne sax bu def na kilos boobu suñu benn sista bu ñu yaa Adama moom mu amee kiram moom def na almost kilos te soo ko amee baay soo ko divide soo moo gën a yomba yàppa moo ko gën a baax moo ko gën a healthy te yàppi ñomboor yàppi yàppi ñomboor amul graisse dafa baax si ki nga xam ne ku am la te dafa ki nga xam ne high blood la di wax ne ñi ñooy Gambia Rabbit Breeders ñu ngi liggéey liggéey mucc ayib te yëpp ko gis ñoom war yaa ni mu nekk mu nekk rab bu neex a pet rab bi nga xam ne rab bu kaam la rab bi nga xam ne du sëb sa kër yaakaar naa ku nekk mun na koo yar daal mbokk yi ñëpp xam na ne càmm ak yaram jur bokk na si li ñu fi maam bàyyee woon te mu jël jéego bu am solo ci jëm kanam réew ba tax na Belgéri Cheikh Omar Diegane ne duñ si des gannaaw benn yoon Belgéri Cheikh Omar Diegane soo ko déggee def fam bu mag ñi yëngu nag ci mboolem xeeti xari elwaas yi ci ay laadum da fa fekk yii ma lay tuddal si lu ci demee ni saalum Saloum Saloum Birahim Algori Cheikh Diop booy séréel ak magistrat yii ma la limal nag seen blog lines yëpp a nga fa da fekk seen doom ak seeni sit ak mboolem xeeti xari elwaas si cooy suma gars yi champion bangook Cheikh Omar Diegane moom mi nga xam ne moo jëloon ndam lu rëy li nga xam ne taarix du ko fàtte mukk moo andi woon xar mu ñuy wax bàcci mu jëlal ko ndam lu rëy ci jongante bi nga xam ne xar yu amagut at ñoo ko doon jongante ah suma gars yi maa leen wax li Belzéri Cheikh Omar Diegane doxantul ba Kanifing da nga leen fa fekk baa nga jokkoo ak ñoom ci 746 1733 746 1733 baa nga jokkoo ak ñoom 37 144 53 Belzéri Cheikh Omar Diegane daal ñoom ñoo fi ne